jëm ci mbirum ñaari tur yooyu ngay wax dama ne benn sax ëpp na ci réew benn ëpp na ci réew waxu malaat nag nga naan dañu leen di jox ay droit droit lan droit fan droit ci ñan droit ak kan waaye ma ne benn ëpp na ci réew waay waxuma la ak nag ñu naan dañ leen di joxe droit fu ñu leen di joxe droit alors j'interpelle le président Macky Sall pour que mu jàkkaarloog sénégalais yi wax leen dëgg ñuy dégg ne mbirum góor jigéen tifaaxan kenn du ko légaliser ci Sénégal mënta nekk parce que loolu buñ ca yeggee ñun suñu bakkan yii danañ leen ko jox incha allahu rabbi lu jëm nag ci wàllu justice man dama gëm ne une justice elle n'est pas parfaite waaye ñi war yëngatu ci justice ñooy jël seen indépendance bopp dem na bañe ci suñu biir programme dañu ne pour l'indépendance de la justice ngir justice moom boppam jaadootul président de la république di nekk chef supérieur président conseil supérieur de la magistrature loolu dafay dañ mu ci suñu biir programme waaye ñun ci suñu biir programme yamuñu ci loolu de dañu yegg ba ci ne lépp loo xam ne carrière magistrat la dañu koy jox ñi nga xam ne ñoom ñooy cour suprême ñoom ñoo koy gérer kon encore une fois réew li koy nërmeel bu fekkee ne boo sàccee ginaar ñu tëj la fukki at waaye ki sàcc fukki milliards ñu bàyyi ko mu ñibbi këram loolu day indi injustice ci réew day indi frustration ci réew te mën naa tasum réew kon loolu ñun sénégalais yi danañ ci taxaw xeex ko l'indépendance de la magistrature lu mën a nekk la te loolu it lu ma gëm la mon frère